naa ne euh, certainement euh, euh, dina teew ci lu yàggul dara. Mohamed ñu profito waale ah. si pour féliciter Alioune Badra Sonko. mi nga xam ne correspondant Sen TV la nekk ci kër gi teewal ñu ca Mbour. mi nga xam ne moom nañ primé meilleur correspondant donc loolu du fierté kër gi yëpp donc ñu koy félicité bu baax a baax loolu moom lu lu rafet la Alioune Badara du courage vraiment mm-hmm. et félicitations sunu boy la il fait beaucoup il fait un excellent travail mm-hmm. euh, xam correspondant seen liggéey dafa metti ah, ci loo xamee ne mës nga mos correspondant mm-hmm. c'est c'est c'est jamais évident mais dañu koy euh, féliciter vraiment te ku ci wàllug liggéey il est Euh, li ñu naan ko ñàkk ki ñaan la. ci mhm. mbirum liggéey da nga koy woo 6 heures du matin. na defal ma liggéey sàngam heures mu mu defal la ko. Mhm. Euh, te il est très généreux dans l' effort. donc vraiment félicitations à Alioune Badara Sonko. sama booy la sama booy la noonu la mën mel <laughs> donc xam nga suma suma ku ma maa ko tàggat donc euh, il faut que <laughs> mu mel noonu ñu ngi koy nuyu Alioune Badara Sonko. ci noonu itam ñuy fàttaliku Siré ah ñaar fukki at yi nga xam ne boo mu dodo le président poète Léopold Sédar Senghor sort de lui. Absolument. Euh, Léopold euh, Sédar euh, Senghor, premier président euh, de la République du Sénégal, 20 ans déjà euh, sur terre. Je pense que l'une des manières aussi de célébrer quelqu'un, c'est de faire ce qu'il aimait par-dessus tout quand il était euh, sur terre. Euh, Senghor aimait euh, euh, le français, la langue française. Mmh. C'est pourquoi je vais faire un témoignage sur Senghor en parlant français pour vous dire des trois dimensions que je retiens de l'homme. Senghor, euh, l'homme politique, le visionnaire, mais Senghor aussi le poète et l'intellectuel intégral mais aussi Senghor le sasuman Senghor le sapeur le, le sañsekat et donc oh, pratiquement une dimension que beaucoup ignoraient mais euh, avant de vous entretenir sur ça sur Senghor en une minute euh, euh, je veux juste euh, euh, rappeler que Senghor aussi était un fan de musique et notamment de la musique profane sénégalaise et je veux vous offrir juste ça faale wo jogoy jiin yóbbuul sedar seen na seedeya ndokle ndokle ndokle ndokle yaa Konjika, konjika, nangin, wakanyal, yokanyal, yokanyal, leo, seda. C'est merci à Léo Seda. Très bien, c'est eux. Oui. Et, et, et, et serait une très belle euh, manière en plus pour de la musique, tu me permettras, Cyril, oui, peut-être également euh, au-delà de la musique ouais. euh, que vous proposez aujourd'hui aux, aux, Sénégalais. Je leur propose aussi de la lecture euh, par rapport à Léopold Sédar Senghor. La littérature bon, et Léopold Sédar Senghor. Euh, mon père, Djadji Touré, qui avait écrit un livre. Euh, euh, sur Léopold Sédar Senghor. Son titre, c'est Senghor sans le superlatif. Euh, c'est un livre préfacé par l'ancien président Abdou Diouf. Ah euh, je vous le recommande. Euh, vivement, c'est un livre très intéressant ah et important par rapport à Senghor Senghor qui suivait beaucoup la presse aussi. absolument parce que euh, si seen jamono ni ñu ko mën a waxee ñooñu. Euh, ci sama. Euh, suñu doyen yooyu euh, ñoom Jaaji euh, Touré yàlla fi yàgg ànd ak wér ak seen jamono jooju xam nga lan moo nekkoon seen force li tax journalisme am lu bari lu soppeeku da ngay présenter journal rajo nga génn téléphone bi sonné nga tiit parce que da ngay xam ne Léopold Senghor mooy woote ci ci ci ORTS yooyu la jamono parce que soit tu as mal articulé un mot mm-hmm. ou bien tu as utilisé un mot qui ne sied pas dans, un, la dimension dans du, un contexte poète, absolument. donc moo tax ñoom seen génération euh, franchement ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare ñi fi ñi fi des mhm. euh, te di euh, ñaan suñu borom ñu yàgg fi ñi fi dëddu nag ci euh, les anciens de l'ORTS Eh, te fekkee jamonoy Senghor ñu leen di ñaanal eh, Birahim maa ngi lay aussi maa ngi sàkku livre boobu xam naa bu ñu ci mënee jot ñun itam mm-hmm. ci suñu bàyyi jaaji tur ñu mën koy lire très euh, rapidement tout à fait très très rapidement vous me permettrez Mohamed euh, de euh, comme on dit de de de de de déroger un peu euh, aux règles habituelles parce que Senghor euh, jar na ko je veux mettre en sourdine euh, cette commémoration nationale pour nous entretenir de trois dimensions de Senghor vous savez aujourd'hui l'Afrique est redevenue un peu le centre de l'économie mondiale l'Afrique est en train aujourd'hui de réécrire Euh, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle euh, géographie euh, de l'économie mondiale, mais aussi une nouvelle grammaire des relations internationales. Ça que si nous voulons mieux vivre Senghor, il nous faudra peut-être relire Senghor dans une forme d'interculturalité et d'intertextualité, parce que Senghor nous disait au siècle dernier enracinement et ouverture, parce que les enjeux du monde de l'époque, c'était des enjeux d'ordre idéologique, culturel, et qu'aujourd'hui les enjeux du financier. Donc ce sera un, un euh, enracinement et enrichissement. Euh, l'autre point que je veux entretenir de Senghor, parce que Senghor aimait la langue française, donc je le célèbre aussi en langue française, ah. euh, c'est que Senghor, euh, sans s'en rendre compte, était le précurseur d'un nouveau courant de pensée dans ce qu'on l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est que le nègre, la raison est hélène, que l'émotion attention au nègre. Cela euh, que le noir, le Les, ça, ça, tout juste que le nègre, pour à la vérité essentielle, dépasse même la raison pour passer par le cœur. Parce que forcément, le cœur même a ses euh, euh, en finir, je de Senghor, le Sassouman, Senghor, le Sancheman. Et regardez la une de 24 heures. Là, les années 60. Senghor en 4 limousine euh, ouvert avec ses binocles euh, euh, Senghor bu musaan sol costume rek. costume ci boppam moo naan Senghor sol nga ma ko. <laughs> d'accord alors revenons à l'actualité avant de ñu poursuivre avec la revue des titres ci wolof ak Birahim alors Mamadou Fofana dañuy ñëw ci une tribune bi li ñu daal li ñu ci nemmeeku mooy TER bi nga xam ne ñu ngi ñuy wax ne jaaxal nañ ci bari bari alors moom ni ma ko titré la tribune mooy le TER au terminus du du gaspillage parce que ñu ngi ci tudd huit cent milliards yu ñu euh, ci dépensé ci trente cinq kilomètres képp ñenn ñi jàppee ko également euh, du ngénte tubaab ban jàngat lañ ci war a mën a def. Euh, jàngat bu ñu ciy def d' abord mooy fi sujet taxawaayu état du Sénégal par rapport à ñoom lu ñu tuddee sa grand événement. parce que munoo loo xam ne da nga koy am sa dëkk nga di ko jéggaane di dem di ko joxi neneen mm-hmm. bu fekkee ne lu jëm ci taxawal terre bi dañ ko jël jox ko sax ay tubaab mais ngal la waaye lu jëm ci wàllum événementiel bi nga dénk ko ay doomu Sénégal. c'est ñun dañ dañ naan dañoo bëgg a développé wu. mais ñun ñooy suñu propre frein à ce développement là. parce que développement mi ngi tàmbali ci nga gëm sa bopp. mais ñun suñu dirigeant yii gëmuñu seen bopp parce que ñàkk gëm seen bopp mooy ñàkk a wekk doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ay secteur di ci rey seen bopp. li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum terre bi. mais on dépa on dépasse nañ on dépense nan la tuddati. Euh, huit cent trente cinq milliards nee nañ affaire bi du koy ëpp parce que après am na lu ñuy tuddee avenant avenant bi mooy